aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rrahmani rrahim mbokk yi ñu topp ci site internet bi di 24 actu comme niñ ko baaxoo di ànd yenn saa su nekk ci waxi sëriñ Touba yi ñoo desiwaat ak yéen ci waxi sëriñ Touba yi ñu amal ci biir kër gi di 24 actu sëriñ Touba nee na mësuma def luy rusloo sama taalibe bi waaye bëgguma sama taalibe di def lu may rusloo sëriñ tuuba nee na yowmal xiyaamati yàlla dala fay rus walla nga ànd fàkku yàlla rus wala yàlla rusloo la daldi ne ni ngay def ba yàlla rus la fekk ku yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb sëriñ tuuba nee na mës naa dégg am tëgg ci boori sàmbi ca njaareem nee na mu laaj lu mu ñu ne ko dañuy làmb mu ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara sëriñ bi nee na na ngeen sàkkoo am fa sunu boroom la nga xam ne du ko jox ab yaafër du ko jox ab saay-saay te mooy ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na sunu borom dama wooteloo woote naa ku ma wuy si wàcc nga maa ci des sunu borom dama wooteloo woote naa ku ma wuy siwul wàcc naa yaa ci des sëriñ bi nee na seytaane bi mu xoolee sama digg ak sama boroom nim jege tem xam ne mënuta fexe ba yàq ko la ne naa ko ñaawal ni ma koy ñaawale nag mooy kum gis meloo na nga war a mel mu ne la demal te dokkale sëriñ bi mas naa tombal sëriñ Mbàkke bu so ñetti tomb ne ko Mbàkke yaa ngi nii yaay tomb bi ci digg bi li la sunu borom digal mooy tomb bi ci sa kanam lim la tere mooy tomb bi ci sa ginnaaw daldi ne ko saa soo jugee jëm ci li la sa boroom digal mbooleem li ngay bëgg di ko wut danaa la jëruma xoole ñoo bokk fuñ jëm ba tey mboolem li ngay daw danaa la jëruma geesoo bokkuñu fuñ jëm waaye safaan bi it noonu la kon mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24actu fii la ñuy yem ak yéen di leen wax ne bu leen fàttane de abonné suñu site bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu